dëgg-dëgg ji soxna Ayda Saaliw mu Seex Béthio defati na lii la dëkkeek man mbuur la jógee nii xar mi ñëw ci man daana si man ménat salaam yaay da jërëjëf yàgg fi lool te wér lan ñaanoo pare wooy bu ko bàyyi mu dem ñoom Mélissa yéen yi fuy mbaato la ci def ñaw jërëjëf cuun ëpp ta Mélissa am na Maguette Ndiaye am na Adja Fandoy am na kaa bi rëy na daa nga ne xar yi jàmm rek lay am. dëgg la ndax yàlla ndax yàlla nee na jeex xëy na day mel. yàlla dëgg la bëgg ma xolam la am soxna yi nag xolam la am jël xolu jaam yi jox ko ñëpp yàlla dëgg la bëgg yàlla jàmm. jërëjëf Thioune. yàlla na jàmm ak yàlla na liggéey kër Cheikh bi yàlla na ko suñu borom di ko fay di ko fay di ko fayet bi. waaw yàlla fay na ko waaye. waaw. yàlla dëgg la bëgg. dañ koy waxtaanee kuy def lu baax dañ koy waxtaanee. ah madame Mbacke ma ne ko soxna Aida teg na la ci place bëgg na la lii de musuma kaa gis ba ma dalee dox ba léegi mësuma gis kuy jeex ay nitam di leen indi teraanga gu mel nii xar gu tool nii ku ko jox xamal ne xaru 400000 nga yëkkati joxe. jàpp 500 parce que Serigne Touba Mbacke jàpp 500 soxna Aida yàlla na jàmmam yàgg. la ma naan ah yaa baax de. Mbacke yaa baax ndax réew mi déggoo ma de soo baaxee ñu mel nii la la yàlla di booleel soxna Aida kenn du moom dafa sëy ci ëtt Serigne Cheikh sëriñ Touba teg ko fii mu ne. ndax bamba ji kenn du liggéey ak moom di jël ndaare. dëgg di jël ndaare man maa ngi ni bamba jee ma teg fa ma ne moo tax tey ji maa ngi dégg thank you very much. jërëjëf Thioune soxna Aida yàlla na sa jàmm yàgg. allahumma amiin waay ne la réew mi ku fi def lu baax dañ koy wax. soxna Aida victoire. fii yaa fi ne. victoire réew mi la bëgg. ñëw nga nekk def katu lu baax. ñëw man de bëgg naa la barki sëñ Touba geste bii laa gis nga def nii ci mbaatu mii man damaa jooy tey. ak samay nit ak ay nitam nga leen di jeex oto bi di parcours di daw ah soxna Aida réew mi dëgg la bëgg kuy def la. barki Serigne Touba Mbacké la ma naan ici c'est pas Paris les gens peuvent vivre comme les Français soxna Aida ci xeet googu nga bokk jàkka yaa ngi ca wet ba naan jàkka yaa ngi ca wet ba naan ak akbar te tabax nga ci lu bëri. catholique yaa ngi ca ba naan je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur avec nous yàlla na sa jàmm yàgg soxna Aïda Cheikh Béthio kenn du nekk ak moom di jël ndaa rawatina la nga liggéey ba mu ah ba mu wax la mu yow yaay yow yaay man loolu ku mu doyatu lan moo lay doy soxna Aïda déggal tënku yi jàpp ci yow mooy dëgg dëgg jàpp ci man ah man de bëgg naa la nga defal mbaaco mii de ak sama nit la yàlla na sa jàmm yàgg noonu su naree ñëw ci yow yàlla na ko suñu borom soppi mu amee AVC paralysé faciale <laughs> loxoom dam gémminam weng yow jàmm ngay am. sama ñëpp la taal ji kenn du nekk ak moom te doo dégg waaw. yow da baax parce que Serigne Touba man tey dama jooy sax te maa jooy. soxna Ayba victoire. victoire victoire daal man daal dama lay ñaanal nga vivre ndax xolam la am viiwal yéen viiveel yéen viiveel yàlla na sa jàmm yàgg.